ko ziar ah, xalif bi ni ñu ko baaxoo di def màggal yi weesu yëpp waaye tam ñëw ngir tamit ah, wax ak sëriñ bi ci taxaw bi nga xamante ni waa Sen'Eau bëgg nañ koo taxaw ci màggal gi ngir jàppale ko waaye tamit ngir bay sunu waar ci màggal rawatina ci mbirum ndox ñu xamal ko ne Sen'Eau laxasaayu na

ñu fexe ba bu mu taxaw jumtukaay ci war yëpp ñu indi ko nit ñi ko war a taxaw yëpp ñu taxaw ko waaye it melukaanu ndox bi ba mu mën a sell ñu bay ci sunu waar ba képp ku fi jëfandikoo ndox ci jamonoy yi màggal gi di nga xam ne ndox mi ngay jëfandikoo ndox mu mucc ayib la mu amul benn gàllankoor la ci wàllu